kañu njortu nag ne moom moo sooke lakk bi nga xam ne amoon na fële ca marché Ocass bu Touba moom nag teg nañ ko loxo ñu ne ab xelalu góor la mu toll ci fanweeri at ñu ne nag li waral ñu teg ko loxo daal ñu bari dañoo gis ne jamono ji nga xam ne lakk bi mu ngi am dañ ko gis mu amee woon ab butéelu essence kon loolu tax ba daal ba ñu defee l'enquête ba jàpp nañ ko ba fi mu nekk nii sax ñu ko euh, teg euh, loxo ñu bari nag nee nañ butéelu essence boobu mu yoroon sax gis nañ mu jëloon ko di ko wis ci euh, suuf moom nag bañ ko laajee daal boobule essence lam mu ko doyee daf ne lu jëndoon la ngir fóon ko. dëmb nag am na ay rappeur yu nag ak i yoo xam ne kon dañoo dajaloo amal ab conférence de presse. di ca sàkku nag eh, ngir ñu bàyyi seen naataango bii di Mor Talla ñu gën koo xam ci nit dof te ñu teg ko loxo nag gannaaw bi mu ab vidéo boo xam ne daal eh, da ca doon yëkkati ay kàddu ak i saaga jëmale eh, ci ñi ñi nga xam ne kon ñoo ngànk réew mi ak it ñii fare ci wàllum justice ñoom nag nee nañu daal bëgg nañ kii di nit dof ñu bàyyi ko euh, kaso bi nga xam ne kon euh, tëj nañ ko mu mën a doxi soxlaam xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleek réewum Libéria foofu nag fa nekk njiitu réew di George Weah xamle na ne kon dina fësal candidature ngir yootu ab deuxième euh, mandat moom nag gannaaw ab discours boo sax mu ngi amal ci lii di. Euh, parlement bi moom mi nga xam ne nag toll na ci euh, cinquante six ans euh, défendre nag li nga xam ne moom mooy politique am te nee na it bu amee mandat bu bees dina gën a ñoŋal li nga xam ne kon moom mooy développement bu réew mi Burkina Faso nag lu toll ci vingt huit personnes ñoom ñoo fa ñoom lañ fa faat ci ñaari attaque yoo xam ne kon dafa am ñu ne attaque bu njëkk bi mu ngi amee ci région bu ñuy wax Cascade région yi euh, mu ngi amee kon ci région bi ñuy woowee région des Cascades te nekk ci ouest euh, bu dëkk ba foofu juróom fukki nit ak juróom kon lañ fa faat muy 15 beneen attaque bi am ca fa ñuy wax Falangutu nekk ci euh, fi ñu naan Sahel foofu it lu ci fukki nit ak ñett ñu faat leen fa bokk na ca fukki gendarme. xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleeg ab tukki boo xam ne eh, kii di njiital église eh, catholique bi di pape François dina ko amal ci juróomi réew yu Afrique mu war ko nag eh, tàmbaleeg république démocratique du Congo la gën a waral nag ñu ne mu war a dem foofu la ci république démocratique du Congo mooy daal xam ngeen dëkk boobu day faral di am daal ay ñaawteef ay nit duñ fay rey ak ay xeexook yi ni ba tax ko ñu ne fa lay njëkkee. boobule euh, visite beneen xibaaru bitim réew ñeel États-Unis foofu nag euh, ab euh, afro américain lañ fa faatati muy wuyoo Tyler Nichols moom nag gannaaw bi nga xamee ne sax kon dañ ko doon interpellé daal ay policier gannaaw bi ñu ko defee métit ba mu dem sax dem ci hôpital kon ci mujjantal ga la ñàkk bakkanam moom mi nga nga xam ne kon mu ngi toll ci vingt-neuf ans Euh, te sax ngi ne euh, bàyyi na lu toll si ñeenti doom kon gannaaw bi ko policiers yi métitale yooyu la métit ca la dem hôpital ba sax mujjee faatu loolu nag yëngalaat coow li nga xam ne kon euh, day faral di am foofu la ci États-Unis te nag ñuy gis ay policiers di fa faral di faat ay nit ñuul. xibaaru sport lañ koy jeexale ba sub tey bii nag équipe national local bu Sénégal bi dinañ football demi-finalu championnat d'Afrique. des nations ñu fas yéene ci jàkkaarloo nag ñi nga xam ne ñoom ñooy baraya yu Madagascar euh, lii nag euh, muy loo xam ne 2009 ba léegi Sénégal mu ngi doog a demaat ci li nga xam ne moom mooy demi-finalu championnat d'Afrique des nations muy match boo xam ne nag euh, narul yomb ndax ñi nga xam ne ñooy waa Madagascar it ñu xarañ lañ wane nañ seen bopp beeg si fi nga xam ne kon moom mooy demi-finale bi match bi war a amee tey. ci li nga xam ne eh, moom mooy pelouse bu stade Nelson Mandela bu Bakary bu 19h GMT jotee loolu la ñu tey ci xibaar seen teewlu di leen jox dañuy ëllëg jaa ngeen